parti bu nek ci opposition fay mettre trop mais une fois euh, ñu nek au pouvoir euh, sa mboxloo bi fay bari je pense que au niveau de Tambacounda lu mel nom mom actuellement il y a beaucoup de soi-disant leaders yo xamantene ne nii nañ ci parti bi te fekk la plupart d'entre eux ils étaient au parti au pouvoir parti Abdoulaye Wade fa lañ nekkoon la plupart ñoom ñëpp daanaka ci nekk bëriwul ak ñoo nga xamante ne nii euh, euh, féetuwul woon fenn nekkul woon daawuñu sax def politique donc ñooñu ñoom ñoo ñëw fekk suñu euh, loolu moo tax coow li bari kon boo yow bu fekkee yow da ngaa nekk dans un parti au pouvoir yow. président def la ministre mbaa mu def la directeur mbaa def la yeneen nga nekk ci ci dëkk li nga war def dëgg dëgg dëgg dëgg moom mooy jàppale maire bi nga ñëw nga laaj ko ay soxlaam. laaj ko ay bëgg-bëggam pour askan wi loo ci ma def nga nga jàppale ko man noonu laa ko gisee mais malheureusement c'est pas le cas kenn ku ci nekk yaa ngay nekk ci sa sa barab naan yaa ngi lijjanti problème mu askan wi. te yooyu yëpp dañ koy def pour xeex maire te yooyu wax dëgg yooyu man rafet duguma ko en tout cas ñoom ñëpp amu ci kenn koo xamante ne nii danga ñëw ci maire nga ne ko maire lan moo si soxla loo xamante ni bu ñu demee Dakar ñu jàppale la ci mbaa ñu jàppale ci askan wi mais malheureusement loolu yëpp amul. comme euh, ni nga ko waxee rek ñun bi ñuy jël nguur gi en 2014. vraiment ben woon lampe benn lampe rek buy tap ci dëkk amul woon amul lampe buy tàkk ci dëkk ba yàlla suturaal ñu aussi avec euh, ak ajroute vraiment ñu japp nous ba la route nationale numéro un bi jugé rond-point police jëm kédugu vraiment ñu éclairé ko ñun aussi dans le cadre de notre budget nous faisons les grandes axes ci biir dëkk bi vraiment ñu ñu leeral ko. actuellement nii am na axe yu bëree bëri yoo xam leeral nañ leeral nañ ko mais aussi des na lu bëree bëri quand ñu ngi ci bu baax a baax a baax programme mu lampadaires solaires yi dafa tardé woon mais ñëw nañ barki démb ñu ngi indi seen i matériel ak loolu bu ñëwee la route aussi encore national bi jógee dakaar ñëw rond point pour jëm yoonu Bakel aussi waa Ariski vraiment ñu ngi koy liggéey ñu ngi ñu ngi ci jàppale. kon boog yaakaar naa avec le budget propre je pense que d'ici d'ici le 31 décembre 2021 vraiment Kouna dana leer nagne. di remercier aussi encore toujours rek l'état du Sénégal parce que wax ji bari na trop. Euh, li président Macky Sall liggéey ci affaire éclairage rek ci suñu région région région région Tambacounda ak Kédougou kenn xamul num tollu boo demee avec avec l'OMVS avec l'OMVG ñu ngi liggéey ay barrage yu rëy am na boo xamante Tamba ma nga fa Kédougou am nañ barrage ce qui est sûr balaa yàgg Tambacounda moom problème mu coupure ay courant yooyu dafay jeex te en même temps aussi état du Sénégal aussi am na projet bu mag boo xamante ni def nañ ko ci biir commune bi def fa ay ay poste courant changé wat boumi courant yi vraiment dal ñi ngi sant président Macky Sall ci liguey bu reuy bob c' yoyu c'est à coup de milliards bu ñëwee aussi encore ci assainissement bi xam nga n'a jamais pensé avoir un programme d'assainissement. programme bi aussi mi ngi dox malgré que amna ay retard programme bi c'est un programme de sept milliards amna ay retard nak mais quand même lolu bu ñal yàlla bu bu Tambacounda aussi ci affaire ci affaire assainissement dana ci am jéego bu rëy rëy rëy bu ci président Macky Sall def. ci suñu cadre budget aussi ci nga xamante ne ni moom mooy ci wàllu mairie bi mairie bi euh, li mu liggéey aussi ci dëkk bi bari na mën nañu wax ne euh, ci euh, ci ci poste santé yi maa ngi ci liggéey maa ngi liggéey aussi encore ci ci ci ci la case tout petit en tout cas daal ci affaire ci affaire éducation maa ngi ci liggéey bu baax. ci affaire santé aussi encore ñing ci liggéey bu baaxa baaxa baax euh baax ci état civil aussi ñing ci liggéey bu baax actuellement tamba ko na le meilleur état civil du Sénégal da ngay ñew légui même pas 5 minutes ñu imprimer la jox la ce ce ce euh ce extrait té loolu aussi bari wu fu am ñi ngi ñi ngi ñi ngi créer aussi encore ay ay garde gros porteur yo xamé d'ici quelque temps aussi camion yi. ñi daan gaare euh, ci ci voie yi ak ci mbedd ci biir dëkk bi danañu leen génne ba nga xam ne danañ dem ci ci seen seen barab vraiment ñuy gaare foofu pour que dëkk bi mën a mën a leer mën a mën a yaatu bu baax a baax baax donc pour te dire que vraiment daal Tambacounda actuellement mi ngi ci ci phase su développement bu am solo boo xam population bi yëpp ñu ngi ci teg seen bët. ci affaire cet gi aussi Tambacounda bokk na ci dëkk yi gën a salte Sénégal loolu moom ñëpp xamoon nañ ko. mais actuellement aussi tant euh, fan yi ñu nekk nii Tambacounda aussi bokk na ci dëkk yi nga xamantene ni ñom ñoom ñoo gën set ci Sénégal té yooyu yëpp kon bok vraiment ay avancé la yo xamantene ni nii mairie bi def nako ak état du Sénégal ak suñu partenaire yi nga xamantene ni ñoon ci jappalé quoi dans le cadre de la coopération décentralisée voilà comme ni nga ko waxee rek suis euh, ci première vague bi mairie bi vraiment liggéey na ci liggéey bu am solo bu vraiment ci sensibilisation ci ci joxe ay masque ci joxe ay ay ay produits yo ay ay joxe nañ dal lu lu bare bari jox ko école yi jox ko jox ko marché yi jox ko quartier yi

yu ñu jox IA jox vraiment pour appeler les maîtres les maîtres d'école donc euh, donc euh, en en tout cas nous, vraiment on compte vraiment encore sensibiliser davantage population parce que wax wax dëgg deuxième vague bi metti na lol lol lol lol, lol, lool lool kon vraiment daal li ñaan vraiment ñu ñu boole xol yi ñu ànd vraiment pour que Tambacounda avancé thank you